maintenant sur la position de de l'opposition sénégalaise <laughs> c'est clair parce que ñaari bopp yi ñuy affiché c'est des personnes mais dañoo bokk ci ay entités entités yi ñu bokk ils sont des libéraux pour moi ah, pour et pour moi et man ma jàpp ni l'opposition sénégalaise présentement oui il fait partie d'un parti libéral parce que l'Alliance pour la République s'est inscrite dans la famille libérale mm. donc dama jàpp ni ay libéraux lañ donc aujourd'hui ñaari parti yu mag yi nga xam ni dañu amoon obédience socialiste ak obédience libérale mhm. tey il se retrouve au niveau de l'opposition mm. qu'est-ce qu'il doit faire mooy dañoo tasaaroo woon la solution mooy il se retrouve okay. il se retrouve la famille socialiste se retrouve la famille libérale se retrouve maintenant nag nañ koy tuddee suba ñoom ñoo xam a bokk loolu Assane waaw parce que PDS aussi parce que xam nga PDS dafa dafa dafa xaroon ci élection présidentielle yi tout à fait ñii dañoo ànd ci lii ñii ànduñu ci donc hmm. maintenant puisque am nañ gan gi nga xam ne moom moo fi toog peut-être il nous dira c'est que <laughs> euh, ban taxawaay lañ ci am peut-être ñun it ñu ñu ñu wax ko ci xalaat est-ce que dañuy nekk opposition wala dañuy dañuy nekk pouvoir parce que aussi hmm. les gens n'ont pas encore clarifié les les candidats qui perdu les élections ils hmm. n'ont pas encore clarifié leur est-ce que dañuy accompagner le pouvoir parce que am na ci ñoo xamante ni ils étaient ensemble dans le cadre du Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. ils étaient des candidats tey ils n'ont pas gagné les élections est-ce que il vont regrouper la Yewwi Askan Wi et rester avec le pouvoir wala dañuy dem ci opposition bi mais man lecture bi ma def mooy sénégalais yi ñoo leen ñoo leen wax ni yéen dem leen opposition la coalition Bassirou Diomaye exerce le pouvoir. maintenant nag ban taxawaay la ñuy am candidat yooyu nga xam ne dañoo perdre élection yi est-ce qu'ils vont rester à l'opposition ou bien est-ce qu'ils vont aller vers euh, le pouvoir pour le soutenir donc ça c'est une question boo xamante ni peut-être hmm. moom mi nga xam ne mi ngi féete côté boobu mën nañu ci apporter benn benn réponse wala benn xalaat